waaw maa leen di fay ginnaaw bi ma sant yàlla julli si bi sant samay ñaari waajur di santa samay entraîneur waaw di santa waa Tëngéej a sama waa Igri di sant ñëpp ah di sant mbëri Tëngéej yëpp di sant ñëpp ñi may jàppale ñëpp. tey loo yëg. tey tey dama kontaan quoi ah tey dama kontaan xam nga nga xewle say mbokk yëpp ñëw taxaw ñëw di la jàppale loolu daa neex quoi. tey kontaan naa trop kontaan naa trop di ñaan yàlla na ma yàlla may ndam la 4 avril incha allahu rabbi di ñaan liggéey liggéey bi lay may ndam est ce que actuellement nii def nga ko. instant bii nii liggéey bu may. may ndam liggéey bu may may ndam bi combat bi taxawee ba léegi de waaw maa ngi si waaw bi combat bi taxawee ba léegi maa ngi si li nga xamante ne nii bu ma ko defee yaakaar na yàlla dina may ndam maa ngi si. sa mag yëpp a ngi nii ñëw wër la ñoom ama neex. doomu dàngu mama yaa ñoom ñëpp soko sim waaw loolu lu muy dolli si yow waaw day dolli si man doole waaw lool day dolli si man doole te ñooñu ñooñu nga wax noonu ku si ay maama yaa ay doomu dàngu ama neex moom dañ koy jëlaale quoi waaw ay 10 000 ay Youssou ay sokosim ay Bamba ñoom ñëpp mënumaa lim ñëpp daal mënumaa lim ñëpp mais damay sant waa Tëngéej yëpp mbëri Tëngéej yëpp ah ñi dëkkul Tëngéej te di ma jàppale ñëpp dama leen di sant bu baax di sant samay entraîneur ku si man ni Papa Yada ak Performance ak Laay Boxeur ak Idi. gis ngeen ni ma mel poids lourd laa woon koo xool xam ne xam nga ko dama entraîné ba damaa ñeer. Papa Yada dafa ñëw ubbi bunt bi. waaw combat bu gaaw daan jël bu rëy yow nga war cee topp la 4 avril mu mel ni loolu sas la wala wala pression la. waaw daanaka lool tamit sas la Papa Yada champion la ndaanaan la dañ koy félicité. di ko ñaanal combat bi victoire bi yàlla na ko jik yow looy def moom def na ba pare. waa xaaral moo wax ba pare. nekk ay victoire victoire Papa Yada di ko ñaanal mu nekk ay victoire victoire non man bu sooba yàlla incha allahu rabbi fi mu jaar rek laay jaar bu sooba yàlla. xam nga ki ko seqal. 4 avril 4 avril ngay bëre de. waaw 4 avril yàgg nañ ko bëre. ah nañ ko bëre ama neex sunu tëdd fil moom da ka daan bëre chaque instant. waaw ah, mais bii dañuy kii rek dañuy doggal rek. neex na moo ko moom dala koo joxaat wala. ah. nee moo moom carte d'Afrique ndax dala koo jox yaw waa waa man rek am laa kon jox na ma ko. ki ngay bëreel xam nga ko. waaw waa xam naa ko. la lébu la comme yow. waaw Coly Faye la. ndaanaan la. bërekat la. seetaan naa ay combat am ku bëre ku bëre 17 combat ku bëre 17 combat kooku champion la Coly Faye champion la mais damay ñaan yàlla na ma yàlla may ndam si kawam. non li ngay wax ni d'accord dégg ko champion gi mais dafa am lu mu àndal dañ ko gis mu nekk mbër mu am xadar ñime xeex ñime attaque moom du may adversaire fu mu yekkee nàkkam Coly Faye du ko conseillé nagaan xeexalaa Gambu Gueye da nga ko koo dàq lu tax nga wax loolu da nga koo dàq wala non xam ne Coly Faye Babacar kan du ko conseillé nagaan xeexalaa Gambu Gueye man loolu xam naa ko foo teg loolu man maa ko xam moom na daanu rek ku dàq bëre yéen ñaar nu ñaar man maa ko dàq bëre foo ko teg man maa ko dàq bëre fa laa ko teg maa nga daax ko daax a xeex. waaw. kooku doole kooku maa nga ba doole. laamu ji laaj loolu ndax adversaire bi nag ni ngay bëre ak moom sama adversaire poids la mais gëm naa ne moom échange moom moo ëpp xam nga kon lamb jaral na ma ak wàññi poids ni mu méttee may entraîner ma demee soit di rey sama bopp kon lamb jaral na ma. waaw mais est-ce que dégg nga dégg mu mais doo bëre doo xeex. kuy bëre Coly ni nga doo bëre doo xeex loolu wax la rek samay combat amateur ñu ngi koy seetaan ñëpp a ngi koy seetaan sama benn combat boo xam ne arrière amul may sant sama géwél waa ginnaaw raay waa ngéwél gi di leen sant bu baax ay abu Soleil gars yëpp ma leen di gërëm ma kenn Pétier sama gaan Alsane Pétier ma lay gërëm baax di gërëm Sambay promoteur waa Poste Thiaroye ñëpp maa ko ba doole Coly Faye maa ko ba doole. ay mbër yu mag lay kontakal de. ay mbër yu mag. ay mbër yu mag lay kontakal. caaro yi la dëkk. waaw gesul sa ginnaaw nga xool ñi gesul sa ginnaaw xoolal ñi xoolal kii xoolal kii nga xool kii xool kii xool kii xoolal diis rapidité nga ne maan ay nangam sangam waaw yow papa yaa daa ngi nii waaw yow. ñun daal dañuy ñaan yàlla na yàlla may ndam. ñu andi ko Tëngéej fii ñu feetu ka di wax waa Tëngéej waa Tëngéej yëpp nañ génn jàppale seen doom Gamou Gueye waaw ax ah, mbëri am combat Tëngéej yëpp dina ñaanal tamit yàlla na yàlla may ndam ñi amul combat sama gars yi ñoom ñëpp yàlla may ñu combat ñu am ndam. indépendance la ñuy bëri 4 avril. 4 avril kan mooy dàq fee ci bés ba. waaw moom daal na jël lépp na jël feccam yi nun daal dinañ ñëw daal tuus suñu tuus tuusam lébu ma saf bako ndëppa taka jéem a def asafuma mu jeex. daan bi sifflé nu daan daan bi incha allahu rabbi bu soobee yàlla. waaw lay wax promoteur bi tëgg làmb bi Dieye production. no Dieye bu ma ko daan sant damay sant Abdoulahan Ndiaye ba pare. Abdoulahan Ndiaye laay sant ba pare. waaw Abdoulahan Ndiaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax. di ko gërëm bu baax a baax a baax Abdoulahan Ndiaye. waaw combat bi sonn na si trop daanaka lépp moom moo ko taxawal moom moo ko dox taxawal ka di sant Dieye tamit bu baax. Dieye maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di sant tamit sama staff sama staff maa ngi leen di santa bu baax ñi nga xamante ne nii ñëpp xam na dañ may jàppale xam nga staff dafa yaatu kenn mën na dëkk fële di la jàppale sax te doo ko xam ñoom ñëpp ñi may jàppale ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa Tëngéej bu baax waa Jokkul di sant borom dóoru yi tamit bu baax ñu ñëw jàpp si combat bi. supporters yi loo leen di yebe say supporters supporteru Coly Faye pour le autorité yi nekk Tëngéej ñu ñëw jàppale ñu ñëpp bàyyiwuñu kenn si Aline Mar laay commencé sunu maam waaw Aline Mar maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax mu ñëw jàpp si combat bu baax ak Souleymane Ndoye maa ngi koy sant bu baax moom tamit mu ñëw jàpp si kaay al maître Bamar Faye maître Bamar Faye maa ngi koy wax moom tamit mu ñëw jàpp si combat bi ay maama yaa daaw de ñaa xam nga di wax ñoom ñëpp Souleymane Ndoye ñu ñëw jàpp si combat bi Pate tamit. moo wax ko mu ñëw mu jàpp si combat bi ñoom Seydina Alioune Ndiaye John Sina ñoom ñëpp maa ngi sant ñëpp di oo Bassène Bassène bu Ama Baldé grand Bass maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bu baax mu ñaanal ma si combat bi xam nga di sant gars yi taxaw fii yëpp ñuy bàyyi seen yitte yëpp ñëw fii di jàppale. supporters yi muy kaddu gu mujj gi looy wax say supporters ak supporters am pour le cadre. supporters yi supporters yi dama leen di wax caare yi ak tëngeej benn la caare yi ak tëngeej benn la. bu jeexee rek jéena mais nun incha allahu rabbi dañ koy jéexal di wax lu def ko si yar ak teggin coow bañ am dara bañ a am non violence waaw non violence ah di wax gars yi xam nga ñëpp ñu jàppa di wax ñëpp ñu ñaanal ñu la 4 avril may ñu ndam di sant ñëpp di jaale tamit open press bi lii tax bi passé nii mu yàqu dan am dëj fële jokkul njaayeen fële ah dafa gaañu quoi waaw sunu benn sunu benn maam imaam Mbaye Samba moo gaañu ñu ngi koy jaale waa Tëngéej gépp ak ah, maam Mbaye doon tamit dafa gaañu ñu ngi koy jaale waa Tëngéej yëpp di leen wax yàlla na yàlla xaare àjjana ak ah, maam Boos yàlla na yàlla xaare àjjana ak ah, mbooloom jullit di la sant yow tamit bu baax Babacar di leen sant yéen ñii ñëpp di sant tamit père Bekaay Mbaye di ko sant bu baax sonn na si ñun topp ak père Alpha maire Ngadi Seye waa Jokko FM maa ngi sant ñëpp ku ma limul rek dama juum di sant ñëpp di sant waa Rio TV di sant Mali Ndiaye booy bii kii jaral naa ko lu ne booy bii xamul dara mu ngi nii Mali Ndiaye maa ngay sant bu baax di sant ñoom Baye Ibra ñoom Sané ñoom Seydina ñoom ñëpp di sant Papa Yada bu baax à performance di ñaan la 4 avril yàlla na ma yàlla may ndam si barka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Babacar maa ngi sant bu baax thank you gars yi kontaan naa